ñun les opérateurs euh, vraiment di wax ne suñu xel dal na bu baax parce que euh, yaakaar naa ne waxtaan bi yàggoon na trop mais lépp njëriñ la ba bi ñu li ñu tënk daal mooy balaa yàgg li nga xam ne moo dox ci boru diggante opérateur ak état bu Sénégal dinañ ko dinañ ko réglé mais loolu amul importance li ëpp importance mooy li nga xam ne moo war a dem ci baykat yi mooy les producteurs loolu moo ëpp solo euh, di wane ne son excellence monsieur le président Macky Sall bàyyi xel bu mu bàyyi xel euh, baykatu Sénégal ndax euh, bi nu fàttali ko si année bee passé rek budget bi yóbboo na ko ci cent milliards loolu vraiment encore tey ñu dellu dajawaat ak ci directive u premier ministre vraiment ñu tënk ne prix gerte bi bu néewee ba néew baykat bi mënu ko jaayee lu yées euh, deux cent quatre-vingt loolu mu nekkaat beneen jéego bu am solo tey euh, information capitale bi mooy ne euh, baykatu Sénégal war na mën a jaayee lu ëpp deux cent quatre-vingt kilos gerte fekk si li nga xam ne tey mooy production bi ñu xayma ko mu war a toll ci un million sept cent mille tonnes loolu c'est la première fois mu am si sunu sunu réew. vraiment daal loolu moo tax ñun opérateurs yi euh, dañoo nekk ñoo xam ne suñu diggante diggante baykat bi ak état opérateur bi moo nekk ci diggante bi kon ñun état la ñuy liggéeyal waaye nag li ñuy liggéeyal état mel na ni am na solo parce que ñun dañaa joxe semence bu baax joxe engrais bu baax loolu moo waral ba tey euh, production bi mu egsi fu mu egsi nii kon daal vraiment di félicité bu baax a baax toutes les acteurs Euh, rawatina sunu ministre di Samba Ndiobène Ka ak euh, premier ministre di wax ne baykatu Sénégal tey war nañ mën a gën a kontaan si li nga xam ne moom lañ moom lañ tënk fii tey ci conseil interministériel.